ay maqaam yàllaw bisimil ilaay ci barkeb say ci fàddilu mi bur yàlla doldino ay maqaam yàllaw auzubillahi min asheytaani irajim bisimillahi rahmaanirahim allahuma salli ala seydina muhammad nabilu mi wala alihi wa sahbihi wa xadimihi wasallama tasliman auzubillah bisimillah inni waliyallah salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh mbégte la ñu am tey dellu si ci suñu beneen jotaay fas yéene ci ànd ak ki nga xam ne moom lañ ci taamu di àndal saa su ne. Mhm. ci wàllu xam-xam ci wàllu tolluwaayu jamono waaye ci tolluwaay ci wàllu itam li nga xamante ne mooy xew-xew yi nga xam ne mi ngi xew ci suñu biir réew mi nga xam ne amuñu leneen lu ko ëpp doole. Mhm. ba tax na rek tey jii ni ñu def rek bëggoon na nuyonte waat moom saafonte waat ak moom waxtaanaat ak moom itamit lenn ci li nga xamante ni actualité la waaye itam lenn itam ci xam-xam waaye itam lenn itam ci li nga xamante ni mooy xew-xew yi nga xamante ni mi ngi xew ci suñu biir hmm. ñu ni neen macha allah rabbi Cheikh Moustapha ñu ngi lay nuyu di la ziar waaye di la dalaat ci biir jotaay bi naan laan salaamaaleykum wa rahmatullah waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatuhu ñu ngi leen di fay nuyoo. macha di sant yàlla. Mhm. di julli ci yent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam di sant waajur yi ak di leen ñaanal yàlla. Mhm. yàlla yërëm leen xare leen aljanna yaatal seeni bàmmeel waaye suuf si seen kaw defal ko képp ku tëdd ci biir suuf noonu it lan koy ñaanale ñi tëdd ci hôpital yi mhm. sama boroom dolli leen wér mm, ak ñi tëdd ci biir kër yi tawat ak mm-hmm. sax ñi koy doxantoo mm-hmm. waaye di ñaanalit ñi caabi féete ginnaaw yal na leen yàlla xettali ña ca jubul yal na leen yàlla teg ci njub ña jub yal na leen yàlla gën a teg ci njub teg nu ci ba xettali leen fanu nekk ci ala siraatul mustaqim yàlla na ko yàlla def di ñaan jàmm ci réew mi di ñaan jàmm ci àdduna bi mm-hmm. li tax nag ma koy ñaan mooy sëriñ bi mm-hmm. xam naa ni sax daan ci dugg mm-hmm. mooy gor day fexe li mu waxoon daawuma fexe ba wax ko ren Mm-hmm. tey ñaan yàlla wax ko déwén <laughs> ndax léeg damay xaw a jaaxle mm-hmm. ci yenn xeetu ustaas yi nga xam ni mm-hmm. dañuy yor jikko joo xam ni jikkoy weñ bu jëm ci màngo lay doon ndax ustaas lépp lu jëm ci puukare yàlla yabalu ko ko ci yónniw ko ci wér na ustaas nit la. Mhm. donte ustaas dafa war a bëgg lu baax. Mhm. donte ustaas dafa war a doon exemple ak exemplaire. Mhm. dafa war a wax wax ju teginu. wallaahi ndeysaan. bu nu la mayee fukk sax xalaatal ñi amul benn. ba sa fukk boobee. te wallahi boo ko séddale woon da nga tal leneen lu dul sant ki ngërëm. wala sax di ko tiitaroo ki di ko safoo. yàlla nag. day am solo nit di xam li la yàlla defal boo koy tiitaroowee nga xam fa nga koy tiitaroowee neex na ci xol nit ki taxaw fukki dong ak juróom ñaar mokkal alxuraan nga koy tiitaroo dafa rëy ci xol waaye boobaa day neex ci xol nga ni ah diw yow mi ma jàppale mhm. yow mi ma taxaw mhm. te nu bàyyi xel ni nag gafa kay jaamur luñ ca sëq jox la sàcc du yooxu sàcc du yëgle na ñuy bàyyi xel loolu li ñépp bokk mhm. loo ca am na ngay mëndu te ni ko muut ndax la bëy di ñam di cëppi cëppi am na ku ko ñam ni muut ak moom nu bàyyi xel loolu ndax lee léeg damay gis yenn image yi damay xaw a am sax kers <laughs> seetaan la ki yàlla dëgg doo tal yenn yi doo ko tal bu la xadis yi ñoree aaya yi ñor la te nga dégg ko nag day am solo nag mm-hmm. xam nga liir aaya ji ak dégg aaya ji du benn billaahi wallahi watallaahi képp ku dégg aaya sunu borom gi mm-hmm. am na yu bare ku la ko jox nga delloo ko mhm. xoolal sëñ Saalihu Mbàkke da ko daan jox sax moo ma wiccaxu ay la muy wiccaxu moo ko xam te <laughs> oh. <laughs> la mhm. moom moo ko xam kon nag bu kenn nangu ni jënd sa ngor waxuma nag jënd ngor am na di mhm. waaye bu ko kenn nangu surtout xam nga ci lan nga war a goree buñ la defalee teraanga nang ko sante yàlla te delloo waat ko ci jaamu yàlla yi ndax yow bokkooñ seetaal am na ñoo xam ni war na nañu lekk ba suur ba géex waaye bu nu xalaatee lu bare waru leen ndax am na ku nu bokk lépp te lekkul ba suur te géexul laa ilaaha illallaah julli dëgg du ko taal mm-hmm. <laughs> Mm-hmm. gis nga boo yoree luy tiitaroo moo tax man la dégg ay jég dégg xadis bi jafe na trop ndax nit balaa ngay taal sa 4x4 buy jar quatre ba vingt-cinq millions mhm. ba nga xalaat kër gi nga romb te sombi wunu kon balaa ngay dugg ci oto bi mhm. billaay balaa nga koy taal mën na diis ci yow ba doo ko tal da ngay dox bu dee yàlla nag moo la ñor mhm. loo fi tiitaroo nu may la ko am na ku ko am te kenn may ko ko ndax kay mayee ko ko may mm-hmm. <laughs> dama bëgg ustaas bu selwisi mm-hmm. dama bëgg ustaas boo xam ni yàlla rek na la ñor mm-hmm. waxuma benn ustaas waxuma ñaar na ñëpp rek ustaas yi réew mépp laay wax lii may wax na ku ci am cër téyel ci gàttal ñëpp laay wax ndax ñépp laay suivre man kese. xam nga nag réew mi dafa metti danga nga wax dëgg ni naan la danga nga iñaan ak da nga soxor ak da nga <laughs> ñeñ réew mi man nag yàlla dogal na ni man doxuma ci loolu ci lijjanti mhm. kay wax loolu ndax xam naa man li may wax mhm. te lu ma wax rek dama ko seetlu seetluwaat ko man dama bëgg mhm. suñ lay yaakaaree. gëm la lool. man njiitu réew mi mënoon na ma woo may ma quarante million cent millions trois cent millions. sëriñ bi. xam nga lu may jàpp ne. ma ni daf ma ko may de. ma war ko def ci kër yi. déedéet. war naa ko dëkke di taxaw ci rond yi. di ko def ay dund war naa ku dëkke mhm. fexe ba am ci lu mat soixante million wala quarante millions tabax ko di xool ñiy taxawaalu amunu ndey amunu bàyyi ma dugal leen wallaay ndeysaan su ma newee ci loolu mhm. duma ma tal lu may sant ba di ko pookarewu mhm. bu dee yàllaa tax mu koy def su ma ko santee yàlla fay ko su ma ko santul yàlla fay ko su ma ko santul ku ko ñaanal ku ma ñaanaloon man ma koy séddale sax ñaan googu moomu ma ko moom ma ko defa ko moom mhm. man daal lii la xaar ci ustaas yépp nag lii nag dama ko ubbee mhm. waaye di nuyu nag ñi ni teewlu mhm. ndax dafa ne ci sama xel mi ne ci sama xol bi di ko lëñbët di ko jaxase ba daanaka daf may déranger man bëgguma loolu am na ñu yiy téere yi Alaaji Abdoul Aziz ñaata yoon lañu ko yóbbul ay mili ay millions ay millions mu def retour xam nga retour de parquet am na wallaay retour de l'argent am na yombatul nag waaye mag ñey mag ñi wallaay gis nga nag sa ngor buñ ko jëndee doon nga jaam te yëgoo ko ñépp ci yam nag mm-hmm. ak foo mën a bokk ak loo mën a doon nag li may wax nag foofu laa yem sëriñ bi mhm. entre parenthèse mhm. di wax ni nag mhm. maa ngi ziar ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm lii may wax nag bu ko kenn moomale kenn ñépp ko bokk ndax damay dama bëgg ëllëg su ma ci yeggee sama xel dem ci wax ji ndax dama bëgg balaa may kenn yóbbu vaar ma yóbbu sama bopp vaar kuy xalaat yóbbu sa bopp vaar nag balaa nga fay dem da nga ko seetaat seetaat <laughs> yàlla yàlla dolli si tur allahumma di ziar ñëpp di wax salaamaaleykum wa rahmatulah waaleykum salaam wa rahmatulahi taala wa barakatuh Cheikh na solo li tax ñuy namm jotaay bi di namm waxtaan wi ndax euh, euh, ku ku dégg ni nga waxee xam ni li olof di faral di wax lu lu lu fees ci xolu doomu aadama lu dëgg ci xolu doomu aadama day feeñ ca kanam nga te Cheikh Moustapha dama la mës a dégg bàyyi xel nga mës a wax benn wax nga laajte na est-ce que ci jamono ji ñu toll nit toog na ba yàgg mu wéet xelam dem ci mbokkam wala ci xaritam wala ci soppeem wala ci ab nawleem mu dem wéetalal ko yàlla jàpp ba set julli ñaari ràkka ñaanal ko ay soxlaam mu faju dan na am mag ñi danga leen daan wax jafe-jafe rek dégg nan la googu mooy yéene nan la jàmm ba loola sëriñ bi yi sutura yàlla da ci am xam nga léegi lu tax moo jafe faj mm-hmm. Cheikh Talla am jafe-jafe nga wax ko nit mun la ndokk ci xolam te yëgoo ko moo waral problème sur problème xam nga lan moo waral su kii feebaree su jugee keneen ki tëdd mhm. ñàkk bañ yéenante jàmm gi la de sëriñ bi mhm. yàllaa wax mhm. du def man yàlla duma def fenn barke di ko dindi coono yii nii dund mën na ñàkk <laughs> gis wax mën na ñàkk mhm. ku ne mën nga ñaanal sa moroom mën nga ñaanal sa bopp mhm. ku ci ne nag mhm. waaye nag bàyyil xel ni am motooru doomi aadama motooru ñaan motooru xol motoor gi jàmm bi di yége ni yàllaa yàlla te yàllaa ne ci moom mu ngi ci xol wallaahi waaye nan la newe ci xol xol bu sell xol bu rafet xol bu làpp waaw surtout mm-hmm. léegi nag sëriñ bi léegi de nit moom am na ñoo xam ni wax leen ñaanal ma sax moom musiba la yàlla bu nu xam la ngay ñaan <laughs> mbaa du ñoo lay njëkk gàllankoor boo nee kees ga kees ga dafa am jafe-jafe mu ne yàlla nan la ci këppaale <laughs> loolu moo am si àdduna bi sëriñ mm-hmm. Ah? Mm-hmm. am jafe-jafe nga boole kook sëriñ mu ne dafa am jafe-jafe dafa am xat-xat waaye daal fexeel ba laaj ko loo xam ni maag yow a koy séddoo man nag ragaluma ko sama baat ci kaw mm-hmm. hmm. dunduma loolu mm-hmm. hmm. xalaatuma dunda loolu mm-hmm. su ma naree dunda loolu yàlla naa faatu boolewuma ko sax ci sama dund waaye xam naa ni nit ñi koy dund bu baax muy lu doy waar nag mm-hmm. benn mm-hmm. ñaareel bi ci tegu mooy mm-hmm. damay xool nit ni mu riise li ko yàlla defal te mënoo yéene sa moroom mi nit ki mel ni yow jàmm te ñu ñun bëgg nañu dem te bu moytuwul ñaari perte la ñu nar a am perte àllaaxira perte àdduna ndax am gàcce ci alaaxira mu leer ni la ni yaa ngi dund te sa xol bi sellut nga wëlbatiku dem alaaxira mu leer ni la ni tey jii sa taxawaay bii nii yërmande yàlla kese moo la fi man fekk wala ko ko yàlla yërëm ci yërmande mu yërëm la te seextaa la nee naa la am na ñu nu jàppe ndof fii ci àdduna <laughs> billaay ëllëg àllaaxira ñooy ramu jàmm ñooñu la ñuy jàpp seen i mbubba ba seen i mbubba yi di xotti ko sax ngir yóbbaale ma ji yóbbaale ma gi nag amagut <laughs> a gaa ñu comprendre nu mm-hmm. moo tax nag sëriñ bi mm-hmm. yooyee am na solo mm-hmm. waaye daal ak a neexoon ci xol seex taala am soxla a ah, sëriñ Moustapha ñaanal ma man dey lii jaaxal na ma bu dee njaboot gela mu ne aa ah, man dey tey jii li ma wax tax na ba duma reer waaye ki ñëw wax la problème mhm. ba pare nga ni ko kaay reer mhm. taru leer te billaahi bu la problème ba yeggoon fenn reer bi da nga toogaat une heure de temps soo ko koy reer yeggu la fa mhm. wala dégguloo lam la wax bokk ah, déet mooy kay dégg dégg na dafa dégg déggalooy am a ah. ah, dégg na day dégg déggalu dégg mooy li may wax fàtte amul fàtte fàtte looy am xam nga yooyu dafay am ci mhm. nit ñi mhm. loolu nag yàlla sant nu loolu te yàllaa wax de nee bu leen sonn seen aajo mënul faju mukk fekku ne li nga yéene sa bopp nga yéene sa mbokk moom nga yéene sa morom yàllaa ko wax dëgg ah kon waxi yàlla jooju doneel moo waral nag léeg fitna ci kaw fitna waaye ku ne mën nga ñaanal sa morom. wallaahi ndeysaan lii mooy li am solo Cheikh Tall. moo tax laaj nga lu am am solo. macha allah mu doon lu am solo ndeysaan euh, Serigne Saliou Mbacke sang bi nga tudd sànq rek daan na ko faral di wax naan fi mu ne naan ñaan ngi gën a gaaw. Hmm. mi ngi mi ngi mi ngi aju ci diggante taalibe ak moromu taalibe. waaw nga xam ne kon loola nga daal di indiwaat firnde ji nii te mu doon lu dëggu jullit bi bu dëggu rek mën na ñaanal moroomu jullitam mën na naanal ñaanal nawle jullitam te jamono ji jaxasoo na ba fi ne gars yi sax dañuy fàtte loolu waaye wala mm. ñuy tànkam lu ni nga ko waxee léegi mu mm. doon lu doy waar mm. waaye li ngay faral di ñaan saa su ne rek yar na yàlla xirtalaat leen ci seen bopp indi waat seen i xol ak seen i sago ba ñu teguwaat ci yoonu siraatal mustaqim léeg-léeg sax li gën a garaaw mooy leen na ni mm-hmm. léeg-léeg nit ni nu moo gën a yées mm-hmm. te lu mu ñaan yàlla loolu na loolu ah. <laughs> ndax xamalu tax <laughs> uh-huh. fukki nit dañuy wax ci moom di muy doon ci moom yiw te ku la ëpp yiw moo la dàq ñaan hmm. looloo garaaw <laughs> déglul wax ji de te denc bi dàq ci denc mooy denc buñ la génneel ni la lii sa denc la yaaka moom mooy yow yow ay nit ñi ngi wax ci yow ba yàlla defal la yiw goo xam ni hmm. loo ñaan yàlla mu nangu moo tax dama ragal net ku saayire ci fànnin yu baree bare nag ndaxte jamono ja muy saayire yoonam newul ci kenn te yow yaa ngi koy lijjanti te xeetu lijjanti googu da koy lijjanti ba tooñ fekk la ca <laughs> yàlla defal ko yiw goo xam ni xamoo lu mu yiwee moo tax na nit ñi def ndànk na nit ñi teey na nit ñi récupérer nit ñi te bañ di sànni nit ñi ak di xas nit ñi moo tax sëriñ bi mhm. sama bàyyi nee na mhm. soo xeebul lenn lenn du la xeeb wallaahi ndeysaan wax na dëgg yal na yàlla doy si ñu ci barkeem ba moom itam te daraje yoon ci yàlla Muhammad alayhi salaatu wasalaam mhm. bokk na ci Cheikh Moustapha tey ñu bëggoon tamit ni ngoy faral di waxee rek coowal jinne coowal rab chaque jour mooy lëmbe réew mi mhm. mooy jaxase gaañ ñi mhm. ñu bëggoon ngeen di wax ne tuuti ci ci ci ci li nga xam ne mooy wa wax yaatal ci waxtaan ci mhm. wàllu jinne waaye waaye ci biir yaatal googu itam ñu buggoon nga leer laal ci ci yan anam la jinne di duggee doomu aadama ak ci yenn waxtu lay duggee tamit nit ki nga xamante ne moom dana da jàpp nañu jinne dafa def da koo dugg xam nga rab jinne benn la léeg sax gaa ñi di ci indi ay polémique mm-hmm. waaye benn la mm-hmm. tur wi nag moo benn différence la am mm-hmm. olof danaan rab rab yaatu rabu àll ngi ci euh, mbaam yaa ngi ci kéwal yaa ngi ci gaynde yaa ngi ci lu ne nu rabu àll rab rek tur la adresse la boo xam ni dafa dem ba ci rab alxuraan moom jinne la wax ndax am na saaru jinne waaw bis bu ne nu wax ka ni xula uhiya ilayya anawstama nafarul binal jinni mhm. jinne am na ki <laughs> xam-xamam gàtt sax xam na ni minal jinnati wa mhm. yàlla waxit ni wàccewuma leen fi lu dul jinne ak doomi aadama ngir nu jaamu ma ndax wàcceewu fi loolu kese mhm. waaye dafa am lu mu ca wax ku naan kon jinne amul xamoo li ngay wax léeg-léeg ci langage bi nag daan ci coincé ay nit mhm. te xëy na ñën cay coincé mënuñu ci génn mhm. <laughs> ndaxte eh, eh, langage bi dew newul ci téere bi mhm. rab moom newul ci téere bi jinne fa ne moom waaw waaye ki wax rab ba lan la bëgg a waxal mi ngi mel ni war a wax taala rek ni nàngam <laughs> waaye xam na ni taala ngay waxal waaye nag li tax daan bi léeg di am ki cay yëngatu bu cay juum nag foofu la éeréel bi nekkee kooku moom jar na sax gëlëmal waadu <laughs> ah, waaw ndax yow mi yëngatu ci wàllu rab te xàmmee woo raba ki jinne ah dëgg dëgg neex yàlla ab waa waxi jaamur nga yor <laughs> di ko waxtaane te waaw ak nga yor mm-hmm. <laughs> di ko wax mm-hmm. te xamoo li ngay wax ba léeg-léeg nga ni raba ki raw xaan benn la nii naa nale noo mhm. man lu ma maîtriser wul sëriñ bi du ma ci wax wallaahi mi ngi dal nag ay nit <laughs> yu bari yàlla xam ne nit naan li ma yor ci jinne te wóor na yàlla pittum ramata sax fanaanoo <laughs> billaahi wallaahi lu leer nga yàlla Cheikh Moustapha wallaahi yàlla xam na ko sëriñ bi léegi nag nan la rab di def mhm. ak luy rab mhm. Cheikh Talla duma dañ di ko waxtaan li may wax dama ko xam rab yi ëppee na nu ñetti yoon mhm. <laughs> rab lépp lu ne ci kanamam xam na ko mhm. lu mu xas ba romb fàtte fàtte na ko <laughs> doomi aadama lépp lu ne ci gannaawam xam na ko mhm. lu xas ba jëm ci kanamam xamagu ko ci <laughs> doomi aadama am fu muy saxi kawar jinne man sax féppi kawar am lu mën a soppeeku ci jinne ba mu mel ni doomi aadama am lu mënul soppeeku ci moom mukk boo ko xoolee rek xam ni moom la mhm. am na jinne yuy ñu xaru jëmmi doomi aadama taximaan yii di daw daan ci xam dara mhm. ak doxkatu guddi yi nga xam am na doxkatu guddi yoo xam sax danoo jommi bay jommalaate jommalaate <laughs> dafay am <laughs> xam nga mhm. léegi nag sëriñ bi su dee yaa ngi laaj lan la rab di dégager ci doomi aadama pourtant doomi aadama ëpp fopp dégëre fopp sax nag mhm. ci yu bare ci maqaama fopp sax mhm. euh, moo ko ëpp jinne waaye sàggante doomi aadama bàyyi ko doomi aadama mhm. ak ñàkk bañ a fonk li mu am moom doomi aadama ak ñàkk bañ xam moo waral jinne yi yàpp ba dinu tortiire laay wax torturer ndax xam nga jinne yaa ngi ni torturer mhm. sëy bi bëgguma pour nga toog ci mhm. doo ci toog waa ji ñëw nga tëgal ko Bercy sëy bi bëgguma pour nga am doom mhm. guddi jot nga gis muy toog sa kaw nga ni noo garaawul génta la ni yëg naa jinne da def sëy bi bëgguma pour nga toog ci yow jigéen mu tëj la dalay tëj ni naan la soccita la jàpp ak nangam ba waa ji découragé ay coow ngeen ni mujje baa boo nareeg sëy sa borom kër muy metti metti goo xam ni da ngay obligé mujje bañ waa ji mm-hmm. te boo demee mel ni dara masula dal day dal ay nit mu ni la dugg nga ci sëy bi mu ni la waaw mu ni la duma la may jàmm nag yaag waa ji même bu ngeen àndee xam nga am na jigéen ñoo xam ni mm-hmm. bu nu géntee sëy dañuy yëg bànneex mm-hmm. waaye bu ñuy seeg seen boroom kër metit gu doywaar la ñuy yëg mhm. ba dan naa sax man amuma yëg-yëg googu mhm. <laughs> am ñoo xam ni sëriñ bi da leen di roof yu doy waar jinne la topp di la topp di la topp ba mënalu dara boo dee jigéen nga mu mën a def sax ci sa kanam nu baal ma ci wax ji damay jàngale ak di leeral rek mhm. nu def ci sa kanam loo xam ni day gilli odoor te fekk te yoon li mu ci jublu muy bëgg sa boroom kër gedd la allahu <laughs> mu geddala la ciy jublu la ilaha illallah il faut nii leeral nit ñi mm-hmm. te nee naa la lépp kenn mënu ko wax sax ci mm-hmm. kaw mm-hmm. <laughs> waaye nag wax ci li nga xam baa wax ci li la yàlla xamal dafa neex ci xol sëriñ bi raba doy rab moo yéeme <laughs> moo tax ku nu mel képp ku nu wax ni yaa ngi mel ni rab mhm. xas nañ la xas nañu la ndax <laughs> léegi sëriñ bi mhm. euh, rab dana taal mhm. waaye rab fu mu taal bu amee doole lu ci ëpp dañu appliqué wul charia la mu santaane hmm. waaw rab bu taalee marché am na ñu fa ne génnewuñu azak kaay ma wax la ko nag rab bu taalee marché am na ñuy dundeek riba jox ma junni ma def ko ñaari junni <laughs> soo may fay ñaari junni ah il faut ni wax <laughs> te day am ci marché yi wala ci place yi man nag mission bi gàtt ma dem sama yoon moo ma gënal mu gudd duma du ma jariñ dara nit ñi aw ma aw boobu yow mi may dégg sax xam nga ni ni ndimbalu yàlla rek a waral lii mm-hmm. bu shariha ba doon dox mhm. nu koy àttee tuuti ci wàllu fonk article bi nu leen tegal mhm. rabbi na yor essence bi di sotti billaahi day xosi doo tàkk <laughs> lu garaaw laa wax yàlla du la génneeloo ñaari yoon mhm. aga yàlla manul ni la ni génneel fayu gaar ñeyi xam nga loolu fayu gaar ñeyi la mooy sa constitution bi ma la jox mhm. ma gardeel la ko mhm. <laughs> ba kenn du ci dut baaraam mhm. kenn du ci yokk kenn du ci wàññi ngeen ko noo yàlla loi bi moom jarul yooyu asaka ji bu ma ko génnee day doy waar <laughs> mu ne ah mu ne waaw mu ne ah baax na allaay ndeysaan mu ni cigarette bu juróomi dërëm mbaa ñeenti dërëm moo nar a taal ay milliards <laughs> te waa ji da ko utiliser ba pare ay ay bu ko wul woon sax. mu gën bu doon daa mokki benn yoon rek. ndax bi cigarette bi di taal marché bi mi ngi toll ci sept centimètres ba quatre centimètres ba cinq centimètres comme cigarette fa muy jeexe ba la ca des mënoo ko manqué boo ko doon à peu ñaata la toll. Mhm. cigarette boobu taal milliards ay milliards. Mhm. yàq ay xëyi jaamur gentaloo ay kër. Mhm. daa di yëngal nag banque ba. gaañe di toñ toñ xoolal yàlla ni mu doy waare gaañe di defuñu ci attention de déedéet garaawut <laughs> waaw léegi nag sëriñ bi foofu la affaire bi ne hmm. fekkate yoo yàllaa naan rab bi he mu ni la xaa ni ko ay wa jërëjëf waaw <laughs> yow comme yow yow yow kii yaa ko waroon teg si yoon moom hmm. moo la waroon teg si yoon boog hmm. ndax rab moo mën a sax di jaamu doomu aadama waaye pas doomu aadama di ko jaamu. lu leer ngay wax. mi ngi daal ñu bari nag. Mhm. waaye nag loolu ñamal naa ci gaañi loolu. Mhm. bu nu defee baax na bu nu deful nag nanu continuer rek di jar rek waaye tus. Mhm. ca taala lu gën a yéeme. yoroon ba yëg ni amatoo. yoroon boog ba yëg ni am ah, lu ne am nga waaw mu leer ni la ni sa alal ku la ko doon xayma mën a ko xam sëriñ bi nga dem ba ak jamono alal ji di wàññiku alal ji di naaw alal ji di di dem alal ji di di dem alal ji di dem te yow mënoo xam lu xew hmm. fekkati yoo am na lu ne ci biir benn ngi noonu hmm. ñaareel bi si tegu sëriñ bi hmm. rab da dem loo <laughs> waaw am na ñoo xam ni rab danaa leen kër gi mënu leen fi dëkk énervé leen xatloo leen baa di leen génteloo yu bizarre ku nu gis tam la dëmm baa ku nu gis yaakaar ni leneen rabay bàyyi ba nga ñëw ci sëñ Moustapha mun la i sëñ Moustapha xamul dara <laughs> rabay bàyyi ba ngay jublu di ñëw xoolal mu jaral ko nga taxaw ci arrêt bi di jël oto kaar bi daan ñëw chaque quinze minutes mu ne tey danga fi am une de temps te du duma ci yam de boo duggee ci kaar bi naa la indil coow loo xam ni <laughs> waa wàcce kaar bi gédd delluwaat si kër rek laa bëgg non rabay bàyyi ba nga ñëw ci sëñ Moustapha mën la xoolal sëñ bi ni lay xawee naan xewa bëtam yi na yu looy xoolal yi fikkati yoo lan lay jublu si loolu man ma de Cheikh rabalay raba folo ba sëyëg sa bopp mooy gën a sëyëg sa jëkkër baa sëyëg euh, sa jabar li gën a doy waar rab moo lay man ma ne rab dana la jàpp ba sa bët yi pour nga gisati ci lu weex dëgg du yomb te nit ku am rab dëgg te lum la wax bol ko bàyyi xel fii dana ciy feeñ <laughs> da koy def te bu ngeen continuer dëgg te doo ko génneel sarax ta nga ni da seet da muur ci saa si <laughs> wax la ko tey <laughs> te kenn du la gën a naqadi deret ci àdduna nag te maa la ko wax ci lii ma la ci wax xoolal li ma la wax ñu ko am kenn du la gën naqadi nag nderit ci àdduna sëriñ bi rab li muy dégager li muy yàq rabay fekk nit ku taaru ba mel ni góor gu wax mu ni ko du yow góor gu wax du yow fekkati yow doon na moom bu yàgg xaw ma nag ci église ba la la yóbbu takka xaw ma sa jàkk ja fa la la yóbbu takka léeg ma dégg xale jigéen ñi di ko tooñ naan ma sama sama rab bi daal moom ma takk bi lay dëgg la mën na leen takk de <laughs> ndaxte ya muy dund ak yow ndaxte na mu mel ci yow moo tax ba kenn mm-hmm. mënatu la takk kon takk na mm-hmm. <laughs> xaw ma otage la la takk nag xaw ma <laughs> mariage la la takk waaye takk na ko raw na otage kay bu léegi nag yooyu noonu sëriñ bi oh. ni nu rab amut man de xam naa ni rab am mm-hmm. akam maa ko xam waaw sëriñ bi. ay yenn waxtu yi bu la fekkee ci suufi daqaar yaa xam ni rab am na. <laughs> ay yenn waxtu yi bu la fekkee ci guy. Hmm. ngoo xam ni fu ne bën bën a nga fay jóge danga xam ni rab am na. ay boo fekkee fu nu samp nga sempi ko ci loo xam ni tegoo ko fa nga ko war a teg da nga xam ni rab am na. am na ñuy sempi. waaye fan la ñuy jaar pour ba sempi. su dul woon dara new fa bu nu ñëwee jaarul loolu. jija jarul waaj <laughs> am na ñuy sempi de am na ñuy fekk samp sempi ko waaye dafa am lu nu samp moo tax nu man sempi rab am na mi ngi dofloo nit ñi mi ngi wax waxloo nit ñi mi ngi xañ nit ñi seeni doom mi ngi xañ nit ñi yu baree bare ku nu ni rab am ku nu ni rab amul sa xam-xam gàtt na nit ñi di ko di ko campagne naan sëriñ si koo dem rek mu la da am rab <laughs> c'est vrai loolu dëgg la pourtant. Mm-hmm. la sëriñ di wax. Mm-hmm. bu dee campagne la it campagne boobu baax na. ndaxte la mu koy wax dëgg la. Mm-hmm. ndaxte effectif bi rab am nit ñi tolluwu nu noonu ñoo nu ëpp nee naa la ñetti yoon waxuma la benn de. ëpp nu doole. ci ëppanu ay at ñun yoo xam ne moom la ñuy dund nee naa la ka ciy gën a néew at day am ñaari téeméeri at ak juróom-ñaar fukk te ci diggu dooleem fa lay toll ni <laughs> nu amut rab di fekk sa kartan mu xool jigéen joo xam ni danga ko bëgg torop mu ni ko nuus ko ni naan la déedéet jigéen ji rabama baaxut <laughs> déedéet sa rab moo la fiire foofu xam na ni boo nekkee jigéen ji talatoo ko daan na la xalaat loo ay yu bon xalaata ko ba nga takkee jabar jooju waaye moom loolu arrangé wu ko <laughs> dafa bëgg di lié ak yow mu tax il faut nuy dimbali sunu njaboot gi <laughs> ñaata xale léegi ñoo ne ci ay caaxaan di caaxaan ni naan amul solo xale yi danoo yàqu yàquwuno dafa am lu leen ni yàq ñu leen ni dugg ni naan danoo yàqu yooyu nag moo am te cause yi ma la wax ci rab mën nañ ci waxtaanaat waxtaanati ci te benn bokk ak moroomam rab dalay may rab dalay xañ rab dalay aar rab dalay seetaan te nag ni nit ñi di fene la rab yi di fene nu bàyyi xelit loolu te rab yenn dàq fen ndax rab yi dañu doon fen ba yàlla sama boroom am ci dégrade gu mu doxal ci ñoom te def ko ci doomi aadama <laughs> nu bàyyi xel loolu rab yi dan daan yéeg nañ leen laaj lan moo tax yéegatunu te it mënatunu woon yër alors ni nu rab amut a <laughs> ah, yow mi koy wax amoo xam-xam mm-hmm. waaye nag yow mi nga xam ni arab nga bëgg a digg nañu la jinne mm-hmm. kese waaye cause yi am na <laughs> kese nag ci àdduna li muy dij ci ay jigéen nag kenn xamul nu mu toll li muy dij ci ay góor kenn xamul nu am na rab boo xam ne danaan la feeg waccoo fukki jabar doo am jabar il faut nga am jabar joo xam ni loo foor foor rab moo la gën a forle mm-hmm. waaw <laughs> tëjj lay def moo tax nag seetaal xam nga ni rab dafay rey doo xam nga ko mm-hmm. Mm-hmm. nit dana toxu ci kër dara ma suka dal mu tëdd ci kër rekk boroom kër gi njëkk faatu toxu laa la wax toxu bees de mhm. dafa goo dara abc ñëw dafa goo dara abc ñëw dafa goo dara ni nu moom day ba mu toxoo ba léegi wératul mhm. dafa goo dara njaboot gi commencé tiit di kiriis dafa goo dara leneen waa loolu lan la <laughs> laaj naa ko fekk dëkkuwaay bala fanu sampa la am na borom te borom moomee am na lu muy laaj te joxunu ko ndax rab day toxu sëriñ si nag am na ñoo xam ni iisee lañ ci <laughs> waaw <laughs> am na ci jógal mhm. eh, jugal fii demal fële ni ko bañu ma dem ay am na nu may demee mhm. kese <laughs> waaw ndax ñoo dëkk nag foog nii naxanteeg ñoom baa di leen xam-xam nan la ñuy defanteeg moom mhm. waaye ku ni rey naa rab kooku yàlla ngay waxanteel nag ndax mhm. rab jaamu yàlla la comme ni ko doone rab kenn du ko rey na nit ñi di bàyyi xel loolu <laughs> boo reyee rab mhm. melal na ni ni rey nga bakkan ndax jaamu yàlla kenn du ko rey ci gàttal nee seex taala <laughs> ni ni jànge alxuraan la rab yi di jànge alxuraan man nag léeg ma dégg yoo xam ne moom mhm. damay muuñ rek ree xam nga naan rey naa rabbaak nangam sàngam wala ana raab ah, diw nga naan deenaak wala newatu fi <laughs> yooyu dafa garaaw ana yàlla doon sutura ndeysaan <laughs> alors ñu ngi noonu tubaab macha allah macha allah Cheikh Moustapha indi nga ci leeral bu doy waar boo xamante ni nii daal euh, waaw man yaa ngi wax loo xam ne dama koy dégg bés bu ne waaye sax xamee moo ko woon nii mais mhm. leeral bi nga ci indi wax dëgg yàlla euh, certifié na ma ko mais est-ce que tey jii dafa am waxtu rab di dugg ci nit wala amul ak naka lay duggee nit. waaw wow rab day dox guddi. Hmm. daanaka bu dee guddi cent la. Hmm. quatre-vingt-dix yi rab a ko moom nag. nu waxante dëgg te yàlla tax. rab day dox njolloor. Hmm. waaye mook seytaanee kay sa mboxloo. ndax ku ci ne am na lu lay yëkkati. <laughs> waaw laaj nga ma lu am solo nag. man na ma jaami yàlla yi di déglu na ma ndaw ñi di déglu ndax mag ñi ñoom demunu fenn waaye na ma ndaw ñi di déglu mm-hmm. ndax ndaw ñi ñu ngi seen mbuttu àdduna mm-hmm. te buñ leen dimbaliwul musiba am te xamuna fu ñuy teg seenu tànk mm-hmm. ca taala xanaa xamoo rab dana la fekk nga toog baa seytaan fekk nga toog mun la jàbbañam boo lekkee sa ngay gëj am jàmm ci àdduna si ngay gëj a wér di wàccu rek oh. di jàmbat biir rek di ngeer rek. Hmm. di jeex rek. moo tax il faut nit ñi ni bàyyi xel. il faut nu bàyyi xel loolu. te nee naa la lii ma la ci wax moo ci gën a ndaw. Hmm. waaw. alors nee na amul ah xanaa leneen la wax kay waaye lii kenn waxatu. dëgg dëgg. nit jigéen di daanu rab carrément waaw am na bokkum waxuma nag ak yi nga xam ni daanu daanulu la ak dan lay daaneel ba léegi du benn waaye am nay saafara mhm. alxuraan xamoon na ni rab dana am yaasiin a gën a dégg rab ci alxuraan yaasiin laa la wax <laughs> déglul wax ji de li ma la wax mhm. yaasin laa la wax mhm. moo gën a dégg rab ci alxuraan waaye rabit moo gën a dégg yaasin ci alxuraan xam na yaasin yaasin xam na ko <laughs> waaw ndax rab day jàngi yaasin moo waral ni naan léeg-léeg yaasinu jinne yi gis nga rab bu jàngee yaasin nga jàng yaasin indil ko yaasinu jinne yi moom du jàng yaasinam bopp <laughs> am na nag <laughs> am na nag nekk ni faate yi jinne amee la yaasinu jinne am yaasinu jinne am na pourtant mm-hmm. am na waaw dafa tàng nag mm-hmm. waaw jokk na ci jalaal mm-hmm. waaw moo tax nag tuwarkaal tuwarkaal macha allah waaw léegi <laughs> noonu. <laughs> doy na waar. macha allah Cheikh Moustapha amati a solo lool wax dëgg yàlla kon nag sama gaañ sama classe gi moom nañ bàyyi doxu guddi te xam ni. doxu guddi moom. dégg ni ci sëñ Moustapha wax. waaw dox. Hmm. sol lu gàtt. Hmm. jaar fu la neex. Hmm. ñaata jigéen ay taxaw ci mbooloo ba ci yàgg rek daanu ni naan danoo këyis kërisunu mbooloo mi rab da ciy ne. ni ko yàgg di ko xool te li mu koy sànni ci xool moom attanu ko day daanu. <laughs> waaye boobu lay gëj a wér ana diw ndax moo ngay tane rek ngay dégg. kon mooy waral ñu naan bët bi dafa diw bët ba dafa aay fa lay jóge kay mani la suur baar waaye bu doon day suur wér baa suur bu doon suur wér rek baax na mhm. dootu fa jekki ci àdduna tiit googu lay tiit di tiit di tiit di tiit ba xale bi day yàqu àdduna fekk ko mi ngi doon jàng fekk mi ngi doon leneen xanaa xamoo rab dana la topp seetaa la te xoolal yoral sa big di bind mhm. rab xam nga kën la gën a soxal ak seytaane mhm. xale bii fo rab dana la jay ba nga këpp oto tey jii da nga war dawal oto fexeel ba sàcc caabi ji fexeel ba am xaalis fexeel ba nàngam tey danga war a gis jigéen <laughs> gis nga jamono jay mbir ma di xew bu ni la woon nan la demee mënoo ko wax moo tax képp ku loolu dal benn yoon nga sauvé. Mhm. mooy tut waaw <laughs> ah, xam ni <laughs> bu la fa fekkaatee moom fi ne. non beneen affaire la. tax est-ce que xam nga ni rab dana soxla derit du sax nit ki. waaye dana fexe ba tuur sa derit bi. moo tax fépp fu ay nit ñu bare di dajaloo rek am na sarax. Mhm. bu ko dul def rek ña teew a koy génnee. Mhm. te génnee nga moo dul sedd. da ngay gis nit toog ba ci yàgg ci escalier rek di bërëngu di daan. waaw <laughs> su paree nàcc. waaye fan lay nàcc lu ci ëpp ñaar la. wóom bi baa fii. <laughs> maa la ko wax nag <laughs> maa la ko wax nag waaye bu amoon luy bañit fiofu lay jóge Seydina Muhammad loolu koy tënk na ko jeexal na téere ah seetlu li ma la wax na seetlu ko nag oh. ah, mhm. see yàlla waaw mi ngi noonu tubaarkaat ba tey sëñ bi dañuy gis ni Cheikh Moustapha tam ñu bëggoon ngeen ni la ay leer dañuy gis des fois nit tëdd mel ni dañ ko dañ dafa am lu koy xoj wala mu jékki-jékki mel ni dafa am lu koy lu koy fatt ba muy mel ni kuy waaj a tàqali ko génn génn àdduna seytaani dana ko def rab dana ko def ok rab moom day toog sa dënn bi fatt la moom carrément oh. waaye foo gënte ni lay xoj mm-hmm. ñaara koy def mm-hmm. nit ku lay liggéey rekk te tëlaa ba oh. feeg reyu du am jàmm feeg tegula la lu la tëral du am jàmm walla seytaani bëgg la fatt boo xëyee sa put di metti hmm. waaye ër boo ko géntalee nit mu def ko boo ko xoolee dana am lum la jàmbat bu dee xamoo ko gëmal ni yaa ngi dëkk ak seytaani moom boo xam ni mat nag seytaani sëkk bu hmm. toxuwul na toxu yow waaw ah, boo bëggee mucc waaw waaye nag bu dee koo bokkal la nag nooy def. moo ma jaaxal dafa laa doon bëgg a ñëw kay. loolu dafay day waan nag. Mm-hmm. ah wax leneen la. mbaam moom su juree xaj doo xam nan ngay def ak moom. léegi nag dafa am yoo xam ne sëriñ bi dana am. Mm-hmm. am ñu ko yeex a xam. Mm-hmm. moo tax du lu ne ngay takk. du lu ne ngay xaritoo am na ñoo xam ni yenn nit ñi ñoo leen ni teg seeni jàngoro yu nu am nit ñi di moytu xelmati am na lu gën a bon ci nit muy xelmati fooy sexe nit xelmati la yàbbi ko boo ko lekkee posan ngay lekk te bu xasee yëngal sa biir bi dootu seet dootu <laughs> moo tax benn. ñaareel bi ci tegu sëriñ bi euh, euh, euh, li ma doon laaj. Mm-hmm. waxaat ma ko. waaw maanaam ci fi mu ne di la xoj wala mu jékki-jékki. mel ni lu lay waaw bu dee rab la sa dënn bi lay toog. Mm-hmm. mel ni lu koy bëgg a dajji nag. Mm-hmm. <laughs> lu ne danga ko def danga ko takk mm-hmm. danga ko yeew da nga wëlbatiku da nga onk lu ne rab dana ko def moom bu bët setee mu mel ni dara masula daal bu dee seytaane nag te yaram tàng dan la ko def waaye sa fii la ëpp li muy toog carrément mm-hmm. ak fit wu dul dal nag mm-hmm. tëf tëf tëf doo nelaw guddi su mu mel ni dara masula dal ku mu dal am na saafara ci ñun bu wér sax te man na la bàyyi waaye cause yi ñoo koy joxe <laughs> waaw cause yii ñoo koy joxe. waaw moo tax nag sëriñ bi. rab dana ko def nag waaye rab ci dënn bi lay toog lu ci ëpp. <laughs> macha allah. jërëjëf Cheikh Moustapha ci leeral bu am solo boobu ngay ndeeti wax dëgg ndax li tam bokkoon na ci question bu bu bu bu yittewu bu bu askan wi yittewoo woon ndax léegi hmm. dafa bëri ci jamono ji ñoo xamante ni jékki-jékki di fat hmm. ñii di ni dañ leen di xoj buñ tëddee guddi di nelaw mu hmm. bëri loo xam ne te te mooy li ngay faral di wax kenn ku ne day indi version bi mu ci bi indi te xamoo ndax mooy bu baax ba xamoo ndax mooy boobu bi donc am ci ku mel ni yow mu indi ci ay leeral day daal di am am am am solo loolu macha allah rabbi bokk na ci tam Cheikh Moustapha lii di bagaasu muus muy wundu naa man wundu wundu moom laay wax ndax gannaaw nun ay olof lañu nun wundu lañu xam waaye pour ma la leeral ko ñii déglu ñu mëgg a xam mooy muus dañoo gis ni muus a gën a late ci réew mi est-ce que muus am na ay bagage waaw ce que tamit ay bagage am baax na ci nit am na lu baax ci nit am na lu baaxul ci nit hmm. galaaj gu bon li ci muus di participer bare na ak gàllaaju muus mooy deru muus ak deru xaj mm-hmm. koo ko gisal moytu ko <laughs> koo ko gisal gëmal ni capable na ci gàllaaj lu ne mm-hmm. moytu ko <laughs> deru muus ak deru xaj waaw bul ko tooñ bul ko wokk bul ko xuri bul sax def lum la jox mu doy la te man kër gu ma xam ni mooy gàllaaju Moussa xaje nga fa du ma fa dugal sama doom ju jigéen du ma ko fa maye man du ma ko def. Hmm? ndax bu yàggee dana mel ni muus baa mel ni xaj. wolof oh, nga lu leer nag laa la kay nga wax. <laughs> ndax gàllaaj yooyu lu ci ëpp ci sacrifice lay dox. ok ci jubadi lay dox. Hmm. ci lu doy waar lay dox. teewul nag muus am na parti boo xam ni. Hmm. am na couleur muus damay bañ a wax mhm. couleur di tooñ mhm. bakkanu jaamur mhm. am na couleur muus boo xam ni wutkatu alal yi dañ koy am gëlëmalkat yi dañu koy am xam naa ko <laughs> wax la ko <laughs> toog naa cib sëriñ bi ko indilee ma jox la million man kay lu leer laa ma sa waa ji ñoo toogandoo ah, woon kay waaw waaw ak <laughs> yeneen ak yeneen ak yeneen hmm. oh. yaa ngi dégg. Mhm. muus nag fii la latee waaye latewul siin de fii nag la late baado latewul siin de kon siin moom dafa seer lool waaw fii nag la latee fii la jarut dara léegi nag sëriñ bi kaawaru muus day joxe asma mhm. waaye ñun sunu kilifa sunu kilifa gu jigéen dafa fonkoon muus da ko daan wutal bool. ndeysaan. <laughs> spécial. <laughs> spécial. man mii di wax ak yow ay muus fanaan nanu sama bopp bi ba tàyyi nelaw ba bët set jug. waaye sunu kilifa gu jigéen dafa fonkoon muus. waaye nee naa la muus mu sokolaama ak la muy dox. muus mu weex ma ak la muy dox mm-hmm. muus léeg-léeg dana joxe xibaar nag mm-hmm. maa la ko wax <laughs> waaw xaaw ak jooju boo ko xamee mm-hmm. <laughs> li lay umpati nag lu niiw lay doon xaaw mu mel ni koy woo xam nga ndax te nee naa la ni lu coow li bare bare muus ak xaj mënuñu déggoo hmm. waaye ku ne am na looy bàyyi xel sa moroom mbir la nag te am na poson bu nun na ci muus ba xaj ñemewu ko lekk <laughs> dana jafe de duma ne la da nga fekk xaj lekk muus de muus lekk muus daal wala muus war na muus a gën a yomb xaj war na muus baa lekk muus mhm. affaire la nag <laughs> ma yaa ngi bàyyi xel <laughs> maa dégg li ngay wax ndax gis naa muus mu jur doom ay doomam war na la war ci ah, doom kay waaye gisaguma xaj bu fi ne war fekk <laughs> waaw moo tax ma la na xaj waññe wan na cuuju ganaar ak gën a yomb war na muus <laughs> mbir la nag muus dafa bare ay bagage deru muus bu ne ak ca la muy dox mhm. deru muus bu ne ak ca la muy dox mhm. am na loo doon toppatoo ji boo génnee ni jàkk ci muus mu ñuul mhm. billaahi delluwaatal sa kër xam nga dégg nga wax jéem déet bu baax am na ñoo xam ni fu nu gisee muus mu ñuul ci aajo jun ndox doxi na moom leer na ni leen ni loola du sotti moom leer na leen <laughs> waaw muus mu lay xool nag lu mat une de temps mm. demal nga seetlu sa yaram rawatina bu dee muus mu ñuul demal nga seetlu ci sa yaram laa la wax waxuma nag hôpital de <laughs> ci baatin mm-hmm. mus mu ñuul mu lay xool rek ba nga jaral ko wëlbatiku rek mu lay xool mhm. nga kalkin mu mat euh, cinquante minutes demal xooli ci sa yaram am na lu xew ah dégg sa maam jékki-jékki jël daal daal di koy sànni wundu woon ne ko jóg fi ko ne xujj di ma xool nii rek xaw ma loo ma. waaw mbir la nag <laughs> xam nga. moo tax sëriñ bi bare na nag ay bagaas mm-hmm. waaye comme moom yu ci bare ci gàllaaj ci xam-xam bu ñuul lay dem. mooy waral léeg sax du ma ci expliquer yu baree bare. Mm-hmm. waaye man nañ ci wax lu dul jeex nag. mais ko koy faral di gént nag. Mm-hmm. kuy faral di gént muus di la dàq wala nga di ko gént lu bari rek. noon yu bare dana ko def. mbiru seytaan yi dana ko def rawatina nga gis sax nit di la ko sànni <laughs> waaw nga nga gis nit di ko sànni surtout <laughs> taala li ngay laaj dafa am solo <laughs> ndeysaan buñ ko doon laaj pourtant te di ko dundee hmm. nit ñi di ko dégg billaahi ñoo bari dana changé dana wàññi ko nit day génn day géntaloo xam ni am na avertissement wala am na prolong prolongation boo xam ni diire la boo xam ni war na ci am sensu fexe ba loola du yegsi mhm. waaye danaan dama doon nelaw rek mhm. loolu du dara ba mbir ma ni këlëb ci kawam mhm. moo tax booy gént du ci kàmba booy gént nu maamax la ci kàmba ngay gént yu bare bu doon sax xarit booy àndal la sax gëstuwaatal say mbir xool xam ni am na lu xew macha allah non tax dafa am solo waaye muus daal sëñ bi. Hmm. xam naa ne daal am na muus muy may alal moom. Hmm. Hmm. waaye yemu ci ak yeneen ak yeneen ak yeneen. tarkalla <laughs> jërëjëf Cheikh Moustapha Dieye xam naa ne dëkk bi buñ doon wàññi li fi ne ci muus rek fi mu toll nii daanaka xam naa ne conteneur yi na nañu ñu musal ñuy tamit rek ci daraja yonent bi bokk na ci tam dañuy faral di gis monaat xamuñu lu bari ci Monate bëggoon nga waxtaan ñu ci tuuti rek ci Monate. dafa bari xam-xam moom Monate. lool. yori bagage. moom mm-hmm. Monate. Mm-hmm. te boo ko xamee dëgg du balu feta rey ci sa dund. Hmm? Monate laa la wax. <laughs> moom Monate. boo bëggee toog ci sëy nga fekk fu Monate am am na fooy toog. moom sa nga nu baal ma ci wax gi mm-hmm. sa sa sa toogukaay laal ko rek mm-hmm. sëy boobu noonu boo ci bëggoon génn sax doo ci génn laa ilaha illallah bu dee ñaan nga ci loolu <laughs> oh. te kenn mën la ci génnee moom mbonaat te xoolal ni mbonaat di doxe mm-hmm. xoolal mbonaat am na nu muy dunde mm-hmm. te kenn xamu xoolal mbonaat <laughs> amul fu muy romb te kenn du ko seetaan mm-hmm. amut ci àdduna <laughs> ak yeneen yu ma ci waxul ndax de naa la tey dañuy ñamalaate rek mm-hmm. <laughs> xoolal mbonaat nga xaar heure bu jant bi di fenk ak heure bi jant bi di so ak heure bi jant ak heure bi weer wi di génn man nga liggéey ci wetu mbonaat de waxuma la ci mbonaat de mhm. nga fekk fu mbonaat du sukka rek nga puus ka rek taxaw foofa noonee mhm. <laughs> xoolal lu la mën a dénk laa la wax yaa cay ne xoolal bu ni woon retraite da cay am wala par cinq ans la gis mhm. gëmal ni cinq ans bu ne yaay relevé déggoo wax ji de cinq ans bu ne yaay relevé te say noona lay fal <laughs> sa noona lay fal naan moom neexul ba neexul waaye ba ngeen di joxaat ko ko rek ndeysaan mënuñu ci dara mbir la nag mm. waaw moo tax na mbonaat dafa doy waar mm. waaye naa la wax suba mbonaat goo booleeg <laughs> garab gu nu naan waswasoor nga waaw nga jël mbonaat nga jël ndox moomu yëngal ko sëriñ bi ba pare sëriñ bi nga jël ko rek def ko ci kiwu mbonaat ba pare wàccee mm-hmm. <laughs> waaw rek nga def ko waaw mbonaat du fu ne lay teew de non mm-hmm. non waaw ata am na foo xam ne su fa demoon mm-hmm. faatu moo ko gënal lool waaye du fa dem <laughs> waaw nga nga nga xool fa muy fële. Mm-hmm. xool fa muy génne. Mm-hmm. xool nan lay dunde mm-hmm. macha allah. mi noonu. torkal la. ci barkeb say xi fàddilu buur yàlla dolli noo ay maqaama yàllaawo bisimil ilaahi ci barkeb say xi fàddilu buur yàlla dolli noo ay maqaam yàllaw bisimil ilaay ci barkeb say ci fàddilu mi bur yàlla dollinu ay maqaam yàllaw Bienvenue sur Salam Vision